waaw eh, fa tabaarakallaahu lii ñuy wax itam nag ñu ngi yëkkati kàddu ci turu sunu kilifa di a sayid maulana muhammadul mansour si ayadahu llah wa nasarahu wa ataala baqaahu eh, li nga laaj nag itam temu bi mooy bi hadi rasul sallallahu alayhi wa nu wajjihul ajiyaala man damay wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa li tax yàlla sunu borom waajal ko ba wutal ko barab bu muy wàcc wutal ko itam waxtu bu muy wàcce loolu il faut ñu dellu ci ak it jamono bi mu wàcce lan la fekk jamono mel ko loolu buñ ci tàmbalee yaakaar naa ni dinañu mën a dégg thème bi li ko tax a jóg dëgg-dëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla di wàcce màkk muy barab ak jamono ji yàlla sunu borom tànn wàccee ko ci fekk na jamono mel noo xam ni bu dee ci aljaziratul arabiya booba fekk na arab yi li nu xamoon mooy jaamu xërëm samp bant walla yett xeer di ko sotti soow di ko wékk ay butit ni ko yaay sama yàlla xam nga suufe mëntoo weesu loolu nga dem ca fa tabaarakallaahu euh, li ñuy wax euh, euh, bouddhiste yi nga fekk leen ñoom itam muy wàllu Japon continuer jëm ba ci tabaarakallaahu côté Asie boobu yëpp li ñu gëmoon mooy Bouddha moom la ñu jàppoon ni mooy seen yàlla xam nga gëm nit ni yow ba jàpp ni mooy sa yàlla itam loolu fa la recul nga dem gis ñoom itam juif yi tamit di wax ni Uzayru mooy seen yàlla ndax dañu ko askanale yàlla ni njabootu yàlla la te yàlla nee na lam yalid wa lam yuulad nga dem côté Rome gis ni ñoom tam ñu ni almasih ibnullah ñu jàpp ni yont yàlla isa alayhi salaam doom la ci yàlla sunu boroom te yàlla lam yalid wa lam yuulat jurul kenn kenn juru ko kon boo nattee ci wàllu pas-pas addina bi reculé woon na façon boo xam ni nit ñi dund daanaka rab yee leen tane ndax ulaika kal an'am bal hum adall su nit demee ba amul lu ko wuutale ak bàyyi ma mbaam mi mu yeew ci gannaaw kër gi mook mbaam mi amul lenn lu leen wuutale kiif kiif la ndax Mawlana Sayyid Cheikh Ahmad Tidiane si al maktum yenn yàlla yokk leeram dafa wax ni ashurbu wal aklu shahyu wa lazzatun wal jinsu mawjudun bi dilli ximaari ni kon nag awla fama al insaanu illa baatilun fi aalamin min baatilin sayyaari nit yàlla def ko bind pour mu représenter yàlla ci kaw kawkab bi ñu nekk te moo di suuf kon bu amul lu muy tiitaroo moom nit lu dul sama ceebu jën bi ma añee ni mu neexe ci man su paree mbaam bi ci gannaaw këram ŋaax boo ko laajee looy ŋaax mu ni sama ngooñ mi ma añee ak a neex soo tiitaroo sama njarum soow mi ma naan neex na mbaam ŋaax ni man sama ndoxum sebet mi ma naan xale yi xam ngeen sebet jigéen ñi ba ñuy togg ceeb dañuy jël ceeb ba sotti ci ndox ah raxas ko euh, segg ndox mooma loolu mooy sebet boo tiitaroo sa njarum soow mbaam tiitaroo sebet mi mu naan mu neex ci moom lool nga jiita tiitaroo ni sama soxna Eh, mooy sama seytaane mbaam tam tiitaroo ni man tam sama jabar mooy sama seytaane alors léegi faj nga sa xiif mbaam faj na xiifam faj nga sa mar mbaam faj na maram satisfaire nga sa bakkan mbaam satisfaire na bakkanam lan moo la différencier ak mbaam wal farqu bayna al waxshi wal insaani fi naadi al karaamati xikmatun min baari lenn rekk moo mën a wuutale nit foofa ak mbaam mi mooy tedd nga tedd ngay jukko te jukko munta am te joxuloo yàlla subhaanahu wa taala li mu moom ci yow kon nu gis ni àddina bi moment boobu boog nit ñi daanaka dund rab lañu doon dund nga dem ci wàllu li ñuy wax euh, politik ñaari puissance ñoo fi nekkoon jul xool ma waxal ma déglu la ah nawlonte boobu mu nawlonte woon ak nit ñi te du seen nawle qul innama ana basharun mislukum waaye nag yuuxa ilayya ki nga yem ak jëmm jëmm ba noppi yàlla bi ko déey te déeyu la xam nga ni mooy sa sang yuuxa ilayya booba nag tabaarakallaahu moo defoon différence digganteem ak ñi ko daan wër kon sallallahu alayhi wa fexe na ba société ba mu doon dund nit ñëpp wuy nañu ko te yëkkatiwul yet forcé kenn euh, jëlul alal di corrompre kenn waaye ay jukkoom ñoo doon séduire nit ñi ñu ñëw waaw falamma baharathum axlaaquhu bi nga xamee ni jukko yooyu moo leen séduire ba nu ñëw xawalahum min ummatin tara al ganam ila ummatin taquudu al alam daf leen toxale ci ay xeet yuy sàmm ay jur kuy sàmm jur nu muy def jiital jur ga waaw ku jur jiitu ay xaraki bay ku nu jiitu est que deet na laaj xalaat logiquement rek laa leen di wax li jaata woon mooy nit ki jiitu xar yi ak bëy yi kon bu xar yi ak bëy yi jiitoo nit ki kon musiba am te mooy jamono dem ba nit ñi jiite nit ñi jikkoy xar ak bëy la ñu yore ah? mu jële leen ci ñuy sàmm ji topp ci gannaaw ay jur mu fexe ba àddina bi yëpp di topp ci seen gannaaw ñoom sàngam sangam yooyale lan moo leen ko may jukko yi moo taxoon loolu am kon ci wàllu politique aussi mu fexe ba ñi daawul bokk toog bokk toog waaw te mooy ñi amul ak ñi am ñëpp waaw wa anfaqta ahlal faqri min ahlil ghina fal kullu fi xaqil xayaati sawaa'um waaw mu fexe ba ci bàllu politik li mu ko réglé mooy fexe ba économie bi ñëpp bokk ko bu ñëpp bokkee koom mi ci dëkk bi rek ñëppay bokk toog waxandoo nawloonte di ànd politique ba mën na ko doxal lu mu bëgg doxal foofale lu dëgg sallallahu alayhi wa kon ci wàllu social itam foofa la jaare ba réglé ko kon bi hadiyi rasul sallallahu alayhi wa sallam nu wajjihul ajiyaala ki ko defoon kàttanu ruuxam egg na ci kàttanu jukkoom aussi egg na ci woowul kenn campagneul kenn propagandul kenn mais ay jukkoom ñoo yegg foo xam ni ku ne bëgg nga mel ni moom nga daw wut si ko kon nag génération yi li ñu mën mooy informer leen rek informer leen objectivement parce que li nga bëgg mooy génération yi tegu fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon njabootam mais loolu il faut leadership moo ko mën a def parce que xale yi ñuy tawat yi ñuy jàmbat mu jaral leen ñu vulgaire jaral leen lu nekk seen yaakaar moo tas Serigne Cheikh nee sa yaakaar tas sa fi dëgër kon leadership boo xam ni ci kattanu ruux ci kattanu jukko mënees naa sukkandiku ci moom pour mu orienter génération yi yóbbu leen. fa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yóbbu woon génération yooyu la foofu la problème bi nekkee hada bi ruuxin minka laa bi diayatin inna diayata bidaatun wa dalaam waaye nag law la nubuwatu minka wal waxyu alladi salakat bi nahji sabilihi al aqwaamu fa ataa bihi Muusa bi alwaaxin samat wa gada bi Israaila fihi lizaamu wa rawaa bihi Isa almasiixu wa xawlahu zumarum bi awsaati rijaali kiraamu wa hada bihi ahlal bisaati muhammadun li tazuula an gaayaatihi l awhaamu gis nga jukko yooyu la yent yàlla Moussa séduire woon ñamu àndaloon poignée d'homme ba mu ci am akas néew wecc ay milliards yi adama ndax qualité la yàllay xool xoolul quantité loolu la yont yàlla isa alayhi salaam defoon comme projet de société alxawaariyuun al isna achara la ci amoon ñu topp ko moo tax yàlla jël leen ñuy qualité te nekkuñu quantité waaye yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam itam loolu la indi ba tax mu ni asxaab yi kan nujum bi ay ayyihim iqtadaytum ihtadaytum mu ni ñii de maa leen defar man muhammad bu ngeen ma gisatul na ku ngeen ci topp rek mu yóbbu leen ci yàlla ku yóbbu nit ñi ci yàlla bañ leen yóbbu ci sa bopp nag loolu la ajiyaal yi soxla loolu la fa la muskile bi nekkee kon responsabilité bu ñu partagé la na kilifa yi jël seen wàll dana yombal njaboot gi jël seen wàll ko defee nag ñu sant leen gërëm leen nuyu leen ci tuuru borom kër gi di Mawlana Mouhamadul Mansour si ayyadahu llahu wa nasara tabaarakallahu di ko ndokkeel ci gàmmu gi di ko ñaanal yàlla eh, li mu sumb yàlla na ko ko yàlla mottalil ah ndax tey fa mu toog mooy yaakaaru mag ñi ah tey tabaarakallah fa mu nekk moo yor ndona li ah ndona xaqiqa nag waxuma ndona aada. tabaarakallaahu te nag tabaarakallaahu euh, jukkoom mëte na ko xam-xamam mëte na ko ah ñun ñi mu yar xam nañ ko waaw ah, bu fekkonte ni topp sant ak tur rek la kenn ku ne am nga baay am nga maam waaye nag fa tabaarakallaahu dañu gis ni tey moom la mag ñi jox seen yaakaar ci kaw suuf pour mu sàmmal leen ko moom la Serigne Cheikh jox tey loola légitimité moo yore légitimité Cheikhul Khalifa radiyallahu anhu moom Serigne Mansour man sëñ Babacar Sy a wax. waaw <laughs> ah, sëñ kër Si radiyallaahu anhu moo ma ni moom sëñ Mansour mooy kandidaam waaw ah, moo ma ni nag taxaw naa pour ndamam te jaral na ma lu ne kon nag sëñ Babacar Si du bëree waaw ah, dañ koy bëreel du bëree Serigne Cheikh moo ma wax ni moom mooy taawu xaqiqa bi ni ma recommandé naa la ak moom mu ni ma ba ëllëg ñu xool ba xam kuy daan tëj gi kon fa tabaarakallaahu yal na yàlla mottali mbébétam ñu ndokkeel leen ci gàmmu gi bésam ndokkeel itam suñu doomu bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane Diop njaga tabaarakallah di wuy di njabootu bàyyi bàcc Diop ah tabaarakallah waa turandoo baay bi tamit macha allah mi ngi fi ñoom itam lu seen baay daan def def nañu tey fukkam sëñ Mansour rek ma koy seddee rek barka démb ci yéen ñu ndokkeel leen ndokkeel sunu jur bi ci suuf xaaj tabaarakallahu mbayan loo ak seeni sœur yëpp yan na yàlla def tawfiq ak taysir ak najaax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu